parlons de Bougazeli Bougazeli est un vendeur de drogue maanaam lii yàlla moo leen siiwal parce que dafa am alkaati yu baax gendarmerie gendarme yu baax yoo xam ne dañuy def seen liggéey dañu bëgg seen réew dañoo gëm seen réew ñoo ñu enquête Bougazeli ba enregistré ko ba jàpp ko flagrand délit ci loxo ci buntu assemblée nationale bu Sénégal mu yor ay faux mais attendez kooku warul woon warul waruñu ko woon may mu sëkkat mais déedéet Bougazelli ils ont fait un appel ñu ne gendarme bi na bàyyi waa ji mu dem quoi dina ñëw wuy ji Bougazelli daw dem Touba xaw ma ci kan la dem nag mais xam naa ne dem na gisi Touba benn kilifa bu mag ñu dem toog ñoom ñëpp ñu def seeni ay ay caaxaan def seeni ay ay banditisme def seeni ay ay ay ay yëfu kabasa ay yëfu kàccoor ba mu doy bi ñu defee lépp ba pare Bougazelli ñu bàyyi ko mu dem nag te di kër Alioune sàll moom ak Alioune Sall ñu lal plan il faut ngeen xam affaire faux billets dama ciy dellu si mu ñëw travailler seen bopp xam ngeen faux billets yi sàll ci la bokk Bougazelli ci la bokk Farba Ngom ci la bokk mooy damay wax branche APR yi laay wax am na yeneen kilifa yu ci bokk dinañ ci dellu si ci ay fan wala dégg ngeen accusation yi am na yeneen kilifa yu mag ci dëkk bi yu ci bokk ay transhumants mais pour le moment nañu concentré wu ci gouvernement bi Farba Ngom Bougazeli ak Alioune Sall ci même clan bi la ñu bokk ñoom ñëpp ñoo bokkoon ci affaire phobie bi ak ay ministre Aly Ngouille Ndiaye ci la bokk Aly Ngouille Ndiaye il fait xam nga tey ngeen toog ci benn réew moo xam ne maanaam dañoo jàppee ñun ay golo maanaam ñun Sénégal maanaam ils nous prennent comme des chats comme des singes dañuy ñëw ñu ne la wala gis ngeen waa ji tal tal tal mu dool na bal police ñëw jàpp ko yóbbu ko ñu ne gis ngeen waa ji door na waa ji bal police jàpp na ko police jàpp ko dugal ko ci biir bureau police bi ubbil ko buntu ginnaaw bi ne ko génnal nga dem toog yi Mauritanie pour benn deux mois après nga ñëwaat ñu waxtaan c'est ce qui se passe dans notre pays Bougazeli ne va pas aller en prison amuleen benn maqaama tant que génnuñu ñun ñu imposer c'est les Sénégalais qui doivent imposer qui doit aller en prison et imposer qui na doit pas aller en prison parce que gis nga Amérique ma dellu si waat ci encore les cinquante états dem leen sur internet ngeen tappe Amérique Amérique yëpp mi ngi tàkk ñu ngi toj boutique yi ñu ngi jël xaalis bi ñu ngi yàq marchandise yi ñu ngi toj dëkk bi yëpp parce que xam nga lu tax de américains yi dañu ne enough is enough xam nga américains yi ci ñan la ñuy jógee ñun ñooy deretu góor pur bi américains yi dañ leen forcer ñëw indi leen fii def leen jaam dañu leen forcer def leen jaam ils les ont pris de chez eux avec la la euh, maanaam ak complicité wu traître yu mel ni Macky Sall ils ont pris les américains en otage ils les ont amenés ici jaarale leen ci suñu réew moomu Gorée Gorée lañ leen jaarale de y avait quatre cents ans de cela dans les années ñu jaarale leen gore googu jaarale leen Ghana jaarale leen ci yenn dëkku Afrique yi indi leen fii ñu def leen jaam ñu tabax kër gi yëpp tabax dëkk bi yëpp ba mu baax léegi ñu jàpp doomu nit ku ñuul kooku ñu rey ko benn doomu aadama pour un vingt dollars xam nga noir américain yi li ñu def ñu ne ñoom duñu dellu ci biir kër tant que tous les quatre policiers ne sont pas allés en prison ñu jàpp policier bu njëkk bi ñu ne voilà third degré murder nangam nangam américain yi ne leen gisagu leen dara gars yi gën a dëkk bi ñu gën a taal taal taal taal xam nga lan moo xew ils ont garanti que tous les trois policiers vont aller en prison les tous les quatre astafurlah tous les quatre policiers vont aller maintenant en prison ñeenti alkaati yëpp léegi teg nañ leen loxo yoon teg na ñeenti alkaati yëpp loxo benn bi meurtre yenn ñetti yëpp complicité complicité wu meurtre ñoom ñett yëpp jox nañ leen charge yi tout le monde vont aller en prison xam nga lu tax parce que doomu américains yi ñoo bañ est-ce que xam nga yàqute Amérique ni mu toll li ñu yàq ci Amérique mat na Sénégal téeméeri yoon fi mu toll nii li ñu yàq tous les cinquante états se sont levés et ils ont révolté et ba léegi nii li may wax ak yéen del ba arrêté gu ñu de arrêté gu ñu de arrêté gu ñu ba léegi ils n'ont pas arrêté arrêté guñu Abdou Karim Gueye xam ngeen lan la def Abdou Karim Xurum xam ngeen lan la def dafa génn wax ci diine islaam dafa génn ne bàyyi leen nit ñi ñu dem julli ci jàkk yi li ngeen di def du yoon bàyyi leen convoqué ay ay ay xalif généraux arrêté arrêté arrêté arrêté Abdou Karim Gueye la wax xam nga Abdou Karim Gueye mu nekk Abdou Karim Gueye mi ngi ci kaso bi jabaram ak doomam ñu ngi souffrir bàyyi seen jëkkër jab doom pàpp bu feebar mi ngi ci biir kaso bi doomu jàmbur Macky Sall ne non non kooku délinquant la Guy Marius Sagna xam ngeen lu mu defoon giimari Marius Sagna dañu yokk courant senegal yokk ndox yokk lépp mu xam ne lii du woy te moom ci la bokk te Guy Marius Sagna topp leen parcours am commencé wu ko tey addunaam yëpp day xeex ndax ay néew ji doole xam nga luñ ko def dañ ko jàpp yeew ko ba mu dëgër dugal ko ci biir kaso bi c'est ce qu'ils ont fait kidnappé ko nag bàyyi ko fa mais keroog bi ngeen génnee bi ñu génnee ñun ñëpp révolté lan moo xew mais ils l'ont mais yéen xam ngeen ne seul le peuple libère maanaam souveraineté Sénégal peuple bi rek moo ko yor xam lu leen tiital dañoo yëngaloon senegal ba gaa yi ne Sénégal de mi ngi yëngatu bu ñu bàyyiwul yi dëkk bi dina tàkk et ils ont laissé les gens partir sénégalais yi yeewu leen yeewu leen sénégalais yi yeewu leen ñu gëm suñu bopp yeewu leen ñu gëm suñu bopp yeewu de bu leen déglu li ñuy def c'est des manipulateurs et des manipulatrices bu leen leen déglu saa yu ma génnee wax ñuy jëfru bu leen ko déglu moom mi ngi Amérique Amérique laa nekk samay doom fii la ñu ne sama soxla fii la ñu xam ngeen sama xol bii fu mu nekk mi ngi Sénégal Amérique bu ñuy marché damay dem Amérique ñoo leen ëpp fetal man ragaluma ay marche mais wax dëgg yàlla nag wax dëgg neex yàlla nga war a bàyyi sa liggéey war bàyyi sa njaboot fii war a bàyyi sa lépp def naa ko ñëwal naa leen Sénégal je suis venu pour vous quand je vous les quand je vous l'ai prévu bi ma leen prévoir bi ma leen joxee rendez-vous j'étais au Sénégal le 1er janvier maa ngi woon Sénégal dem ngeen xool archive yi on a appelé à la marche de wan million nee naa leen li neex ci wan million xam nga mooy lan mooy ñun duñu compétition wan million du compétition ah parce que wan million du mouvement mouvement Y'en a marre mooy mouvement mouvement euh, euh, euh, frappe France dégage mooy mouvement mouvement nitu dëgg valeur mooy mouvement mouvement mooy mouvement citoyen yooyu nekk seen dëkk xam ngeen lan moo ma dal ci one million dama toog benn jour ma ne man sama dëkk bu baax bii dëkk ba nga xam ne maam Alaaji Malick ñaan na fa sëñ Bamba maam maam Bamba ñaan na fa maam Boukounta Njaasaan ñaan nañ fa suñu maam yu baax yépp ñaan nañ ci Sénégal ma ne leen lan la ñu mën a def pour dimbali Sénégal parce que li ma su remarqué mooy compétition bi moo bari kii bu génnee yaakaar ne kale lay jàppale kale bu génnee yaakaar ne kale lay jàppale on va créer quelque chose qui s'appelle One Million March comme l'Amérique l'avait fait xam nga Amérique li ñu defoon dañu woote un million de personnes à wa DC One Million Man March fa la juddoo un million de personnes Louis Farrakhan bi mu ko wootee un million de personnes ñoo dem daje Washington DC un million mais ma ne la américains yi ba léegi loolu daf leen traumatisé ça les a traumatisés jusqu'à présent parce ñu ngi doon xalaat ci seen bopp naka ngay def ba génne un million de personnes un million de personnes génn sans problème tey Sénégal imagine ngeen un million de personnes génn ñu taxaw ci kanamu palais de la République ñu ne Macky Sall duñ fi jóge tànk que démissionné wuloo ngeen defee ne ban militaire moo leen di tiire kenn du leen tiire xam nga loo leen di def. Mm. bu leen tàggatoo jël leen seen car ndànk ñëpp jëlandoo seen car rapide. ñëpp jëlandoo seeni taxi ñëpp jël li ñu war a jël yéen ñëpp ngeen gàddu seeni mbàjjo ngeen yóbbaale seen mburu poncé ngeen yóbbaale seen suukar yóbbaale seen meew wala dugal seen biscuit seen poche wala yóbbaale seen tàndarma ngeen dem jihaad ngeen dem génnee Macky Sall ci pale bi dem déloger ko loolu rek moo mën a tax Sénégal bu mu njàmmi jeex xam nga du ma perte sama tey toog fii di leen wax li Bougazelli def ndax yéen a ma ko gën a xam Bougazelli li mu def ci Sénégal yéen a ko gën a xam man bu ma fi toogee tey di leen limal li Bougazelli def da ngeen ma war a dóor ba may bëgg a dee. kii mooy maître El Hadj Diouf l' avocat amul benn procès bu mu masa a daan dans l'histoire de l' di du Sénégal ku ko xam wax ma ko amul benn procès moom maanaam procès yi bokk njuuj njaaj yëpp moom moo doon avocat wu Yaya Jammeh moom moo doon avocat wu Hissène Habré Hissène Habré ana mu du génn na maanaam ci coronavirus bi non ak yeneen ak yeneen ak yeneen moom moo doon avocat kan Assane Diouf Assane Diouf jële ci lan treize mois ndekete dafa doon xool ay dossier di ko laaji question di ko dugal di ko gën a gasal pax di ko dugal ci biir lu ko Assane Diouf wax rek xam nga entre avocat ak nitam maanaam lépp c'est ak euh, avocat ak client mais dafa doon déglu doomu jàmbur boobu lu ko kooku wax rek mu gas pax mu mu wax ko yëpp président de la république ak ñi mu àndal maanaam mu jël client mu sereb ko li américains yi di wax maanaam mu jël client jox ko Macky Sall ci biir dëwlin bu tàng bu savez que le Sénégal ne va pas changer sans un révolte dégg naa nag dëkk maa ngi yëngatu man de am ngeen sama jaaraama man vous a you have my blessings parce que Amérique ngi yëngatu te Sénégal gënul Amérique voilà Sénégal gënul Amérique Amérique ngi yëngatu te ñu ngi koy taal mais Sénégal gënul Amérique donc li ma am rek pour wax leen sénégalais yi jóg leen te ngeen génn te ngeen xeex parce que xeex rek mooy libéré xeex rek mooy libéré maanaam waxtaan yi leen di wax yëpp neex na bu ñu leen wooyee ci calme. déglu leen rek mais ki leen di woo ci calme est-ce que mi ngi leen di jox dépense di leen jox ceeb ngeen lekk di leen jox ndox ngeen naan loolu mooy wax